That was his fault. soo technique Alboury soo technique a ngi wallaay Baye Balla Mbuub. combat bu ñoom ñaar kenn mosu cee dégg mu ñal combat amateur la. Alboury 7 combat 7 victoire. ndeysaan Sol Technique 9 combat 9 victoire. la mujjee daan. ak Baye Ndiaga moom Sol Technique ak Darso ak Boy Niang waaye ki muy bëreel moo daanan jama bu bada jonn moo daanan Boy Fall daan ma Fall say daan Boy Morola. moo fi mujjee def la laa Baye Fall la Guillot du peuple rakku nee na la leeti cukkali cukkali cukkali cukkali njaa sëriñ njaa sëriñ njaagaan soo <laughs> technique ay askan baa ngi nii combat bu neex baa ngi nii wallaay ndeysaan ñoom ñaar ñëpp neex ba peex daan daan na mbër ñu ne daane mu ne maa ko man ñu ne ko foo teg mu ne fan laa ko war a teg <laughs> na fan yi ay hamburger lay lekk ay hamburger arbitre baa ngi wax ñoom Alboury nee maamam bu ko kenn du dóor ñaar du dóor ñett du dóor nee day bàyyi ba mat mu boole duma nee na ku mas a yàq ay waxam da nga defaraat wala mu ñuus ba mu duul soo technique lay jàkkaarloo gaynde gu déggul jat ma ngay jat di léemu laay laay la la abib bi woo na leen soo technique Alboury nee ne toogatul taxawatul rakkam jaay bëree Alboury kenn déggagu ci muñal ñaari bërëkkat lan Alboury daa bëgg a toj nen ba xoolal soo technique juutu na ko wang <laughs> Alboury toj na nen ba soo technique da koo juutu wang <laughs> combat spécial bi waay soo technique Alboury ñoom ñaar ñu ngi wax ak ñoom laaj na ay siisam Malick ma ngay wax ak Albouri Albouri ñaan na tuufi ci kanamam laaj na ay siisam ndax pare nañ zone technique pare nga arbitre sifle na génn seen diggante mbokk yi combat social baa ngi noonu dox ci diggante Sow Technique ak Albouri <laughs> waaw soo Technique lu muy jase nii la Albouri Sow na suuf ci tànk ci tànk yi la jëm si Sow Technique ma ngay woy <laughs> eh. da soofantal di la comédie di la kaañ ba daan la yooyu lay def ak yeneen moom soo technique waaye Alboury jolof-jolof bi ca buur ya la bokkoon ku mas a yàq waxi maamam xoola soo ay waay waay waay soo waay te tànk yi la jëm si laay la la soo technique Alboury Alboury wàcc na soo technique Alboury soo technique ci tànk yi la jëm si Baye day songu de ci suuf la jëm Alboury soo technique soo technique ma ngi koy wër loo soo technique Alboury day mel ni ku la ragal day mel ni ku la ragal xaajut bay nelaw sax mi ngi xaajut bay nelaw arbitre sifflé na génn seen diggante Alboury soo technique Alboury moo ñëwoon ginnaaw mooy njool mi ñoom ñaar dañoo neex ñoo poñe garaam bi ak WhatsApp bi Facebook bi ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu soo technique Alboury ñaari xale yaa ngi noonu daa bëgg a de jël na tànk ya fàq na ko Alboury fàq na ko jeexagul de jeexagul de day jóg ak yow jeexagul lool la man lii mu def la man day jóg ak yow de day jóg ak yow de manam la de maninam sol technique Alboury Alboury fàq na ko dalay magum de Alboury njatt na ko de jeexagul de ma ngay door jeexagul de jeexagul de maa la ko wax bilaay jeexagul Alboury nga koy rokkas ci suuf jeexagul de lii mu def da koo man jeexagul de Alboury ngi door ci suuf Alboury ngi door ci suuf jeexagul de soo technique lii mu def maninam la arbitre atana arbitre atte na ardo ardo soo soo technique dem na wara naa jeex wara naa jeex de soo technique dem na ardo mi ngi noonu ñoom ñaar del si ginnaaw ba soo technique demee ardo ba ñëw Alboury ardo la ko yóbbu woon arbitre sifflé waat na génn seen diggante soo technique Alboury soo technique Alboury soo day mel ni ku la ragal day mel ni ku la ragal moom soo technique waaye Alboury daa mel ni daa sangu waaye nelawut mësu koo def nee na mu ma nee la nuus dama lay ñoos ñibbi noos <laughs> ay rakku soo technique ñaari xale yaa ngi noonu dara amagul mooy combat social bi bu jeexee grand bee ñëw sa waay ci tànk yi la bëgg a ñëw soo soo song la bëgg a bu kib guddi la de wala bu timis dàqal te toog ci gétt gi xam ne day ñëwaat day door rek daw jëli tànk bi Alboury daa wàcc soo tig nit neuf combat neuf victoire jël na ko waxoon naa la ko daje nañ ci suuf Alboury ak daje nañ ana luy xew dàq na ko day ñëw de ñëwaat na ca tànk ya Alboury yéeg na ko bañ na ma nga ca suuf Alboury Sokh technique ña nga ca suuf ma ngay dóor bañ na Sokh technique Alboury dara xewagul Alboury ngi door ci suuf Alboury ngi door ci suuf ma ngay door ma ngay door rakku nee na baa ngay door am na ngemb soo technique am na ngemb soo technique Alboury ña nga ca soo technique Albouri ñaari xale yaa ngi noonu dara xewagul soo technique Albouri Albouri sept combats sept victoires soo technique neuf combats neuf victoires soo technique moo ar Ardo ñëwaat na ña nga ca combat ba ñoom ñaar. dara xewalgul mooy combat social bi bu jeexee grand combat bee ñëw combat bi mata caam ma ngi koy seetaan ma nga ca ñàkku rab ndeysaan mbokkam ndeyam maam jaara asu caam mbokkam ndeyam amina mbokku ndeye koy jur <laughs> ndeysaan moo dog Malick nga bokkal baay mata caam kenn du yow ci réew mi banga nga baaxee ba tey bàyyi woo mata ak a baax te bëgg ambiance soo technique Albury mata caam sa ñaari xarit yaa ngi bëre soo technique Albury yaa ngi dóor soo dina dellu ardo de mi ngi Albury koy dóor de Albury koy dóor de ah e mi ngi koy ñam atte day dem day dem ardo day dem ardo alburee ngi noonu ndekete ndekete alburi mi daa sangu mee nelawut soo am na problème tey de soo tey gis na biddiw bëccëg de laa ilaaha illallaah soo technique gis na biddiw bëccëg tey de alburee ngi nii saay saay bi xool ko def na li muy def ba pare dem toog jàpp njàmburam <laughs> aka bandi maamam daawul xeex ak kenn daawul xeexa ak ñaar daawul xeex ak ñett fukk rek la daa xeexal fukk soo tay soo tay dara baaxul de soo yàgg na ci ardo bi de soo yàgg na ci ardo bi de wàcc na soo ngi ci ardo bi e Alboury am na ndam day fecc may ko may ko day fecc day fecc day jël taas ma taas yóbbul ma waay ay waay tàccu ko tàccu ma rakku ne na tabit tabit gi daf rakatin mbar mba cagin ran mba cagin rasagin rasagin taba rasagin taba racabigin mbasgin tatem bi tagi daw raw tegin rasagin barata taga ta tag param eh, <laughs> miin nga ko sa yëf la yooyu yaa ko ak yeneen e eh, kay kay e eh, nene e e nene e e nene e nene jëlal ma ko oh, jawe e nene mas e nene kay kay kay kay kay kay kay kay kay baax na baax na